maaleykum mbokk internet Iba bakkan TV yi sama rêve moo réalisé wu moo tax lépp loo gis rek patience si am solo kii dama ko yàgg bëggoon bi yàlla xam na loolu waaw dama ko dama ko sopp daal waaw ku ma sopp la dama ko sopp man man Iba Kane la moom tamit non dama laa sopp moom frère tamit ku la sopp la dama yàgg bëgg interview bi say xam ah, dëgg la say xam nga ci waaw yow it def nga ci de. non yow li nga si def li nga si bay bay bari na. waaw mais ñun ñëpp ci def rek. defandoola la. defandoo la. waaw et puis danoo toll woon benn moment boo xamante ni. yàlla moo ni woon làmb nag léegi il mu gën a jóg. il faut mu jël envolam. il faut mu jël envolom waaw. parce que am gi nga moment ñun bi ñuy commencé laa. waaw. dafa fekk moment boobu. waaw. Mohamed Ndao Tyson yàggul ñun yàggunoo moom mu ne day bàyyi. day bàyyi waaw day sa mu sàqee fële. sàqee yi suspendre ko. dëgg la mu ne kon day bàyyi. day bàyyi. te Tyson moment boobu mu bàyyee làmb ñu bëri dañ noonu naroon a bàyyi làmb. Ah, wallaahi. mais Bantamba ak sunu làmb. Uh-huh. ñoo ci téye ñu. parce que saa boo xëyee bi jënd xam actualité lamb dëgg la bu mardi ak ah. jeudi ah, nga def la mardi 20 décembre première émission Bantamba mu noonu 2005 waaw waaw 2005 2005 première émission Bantamba ah, ko fàtte <laughs> mais mais Bécaye le premier janvier 2006 waaw ngay rapporté rek sa baat dem waaw waaw dañ laa mar a guute woon wala. <laughs> non non non non non non xam nga ni boobu mooy sama premier reportage wu. grand combat. grand combat direct. 2STV. 2STV. waaw. te Yékini daan ko. Yékini daan ko jàpp ngemb. waaw. Tyson nga ne Tyson répété waatal commentaire boobu <laughs> El ñëw non parce que boobu waaw boobu ñoom ñaar soriwul ma. soriwuñ la. ñu ngi à à un cinquante. un mètre nga toog maa ngi taxaw ci barrière bi. waaw. ñoom yàlla woo yàlla ñuy bëri ñëw ba ci sama kanam. si mm, kanam. may reporté. Mm, allez-y. waaw mm. waaw te ah, fekk ñoom ñaar ñu songoo. Mm-hmm, songoo nañu bi ñu songoo nag Yékini dóor ci suuf. waaw Yékini du dóor ci suuf. waaw que seen yëkkati bopp bi. Mm-hmm. comprendre nga. dëgg la et puis tey seen tey seen moo boore. Uh-huh. bañ deret di feeñ. feeñ. mu sëggaat mu sëggaat. tey sa daanaan la. Uh-huh. ensuite. waaw bañ sa deret di feeñ mu sëggaat. mu sëggaat. Yékini dóor. dóor. jàpp ci ngemb li tey sam jàppam baaxul mhm. après yëg tey yëkk ni yëkk ni pivoté ko ah, tuur ko nga nga yuuxu ma yuuxu ni oh tey sam daal na tey sam rek baat bi dem jël bu bi noonu booba émotion laa waxe émotion émotion la parce que damaa xam ne combat bu mag la. combat bu mag la. bu mag la tey jeune boobu mu ngi ci xam nga rek. mais boobu xale yi commencé hmm. nañu. di ko miin. di ko miin dëgg commencé nañu di ko miin Bombardier daan na ko. Hmm. ah. Hmm. Yékini daan Bombardier. waaw. Yékini daan Bombardier daan Tyson. sa premier grand commentaire. waaw moo doon sama premier grand commentaire. et puis comme boobu. mu jaay. moo jaay banta moo jaay bant petit mbay tëgg ko petit mbay tëgg ko ndeysaan ñu ñaanal ko ah, yàlla na dellu si waat ci réew mi si jàmm salaam man nag damaa yaakaar dañu dañaa jàppoon sa baat déedéet non bu dee danoo jàppoon sama baat waaw fi mu mën a feeña mooy Modou loo Balla Gaye Modou Lo Balla Gaye 21 mars 2010 waaw waaw waaw waaw dee jàpp baat am waaw boobu la mhm. ak euh, am na beneen waaw am na beneen boo xamante ni nii tamit waaw bu dee jàpp baat am na waaw kooku mën na ne. mooy ban. combat boobu daal euh, Demba Diop la. Uh-huh. Demba Diop la. bu hmm. dul bu dul Lac de waaw. ci genre combat yooyu bu dee parce que dem naa ba nga xamante ni. Uh-huh. combat bi commencé na. waaw pour ma wax. Uh-huh. mais comme que man nandite la waaw. <laughs> ma bàyyi consultant yi. ma leen may filaas ñuy wax. fekk baat bi dem na. waaw fekk na baat bi wàcc na. wàcc na waaw day yuuxu mais dara du ñëw. Modou Lo Balla Gaye kañ nga sentir sa baat dem na. Modou Lo Balla Gaye bi bi bi arbitre bi ñu sama baat dafa dem. allahu akbar waaw mais ak la Balla daan na Modou Lo. boobu nank laa ko mën a wax mais damay yuuxu. Hmm. pour sama voix mën a génn. Hmm. Aziz Mbaye moom tamit ma ñu répété li ñu bu ma ne Balla gay daan na Modou Lo bu Balla Gaye daan na Modou Lo. et lan ci def man ak Abdou Aziz. day am si la si am. mën na am. dama ne la bu dee jàpp am na. waaw yooyu laa ko gën a jàpp. yow nga a jàpp da ngay gis yenn saa yi artistes yi ñu ne la artiste bi danoo jàpp baat bi. Mm. xam nga ay africain lañu. ay mën naa am da ngaa waaw mën naa am la ma dajoon ca combat ba. waaw parcours bi ma ci def. ci uh-huh. préparation yi reportage yi tout ça. Uh-huh. ñëw ba nga xam ne ma nga ca fin ba nag. Uh-huh. affaire bi dem affaire bi metti. ndeysaan affaire bi metti. mais da di ay événement yoo xamante ni doo ko fàtte. doo ko fàtte parce que moo la def li nga mel. moo la def li nga mel. mu nekk deux grands reportages yu mag a mag. waaw 21 mars 2010 1er janvier 2006. waaw yooyu du ma ko fàtte. Uh-huh. yooyu ay événement làmb la woon. Uh-huh. waaw solo. te est-ce que xam nga ne yow après boobu la Yékini jël nekk roi des arènes. waaw ci la nekkee roi des arènes. ci la uh-huh. nekkee roi des arènes. ci la mu defee nag parcours bu neex man ak moom. parcours bu neex di ànd. dem nañ fi France. dem nañ fi France waaw Farba Ngom moo ko Farba Ngom sama benn xarit séeréer. waaw chef d' bu nekkoon Paris. waaw Yékini ma ko présenté. dëgg la uh-huh. Yékini pas présenté mais Yékini moo ko ne dem damay ànd ak. sa relation Yékini dafa particulière woon. ah oui. c' est à dire. sama xarit la woon dafa ma bëggoon ma bëgg ko. Hmm. waaw da ngeen doon bu ma xewlee dama ko koy wax. waaw ma tuddee drapeau. Hmm. dama ko koy wax. Hmm. ay interview yi gën a neex. waaw waaw. mu yéen a ko def da ngeen déggoo lu uh-huh. mu buy dem fenn wax ma uh-huh. bu amee événement wax ma bu kenn mm-hmm. ñëwee ci moom mm-hmm. di ko wax dara lu jëm ci kii man lay wax mm-hmm. lépp lu mu doon def yu ci bëri nag vraiment man la daan woo la daan woo ay xaritam sax bu ñu soxlaa dara danaan la woowal Alaaji Bécaye dëgg la 2008 moom ak yé moom ak Baboy troisième confrontation bi. moom ak Baboy. troisième bi wër ah. yëkkati bi. yëkkati bi nga rapporté ko est ce que mën nga ñu si delluwaat wala wala mënatoo ko rapporté. a <laughs> mënatuma ko. waxaatal rek lu bari da doon waaw mooy bi ma naan c'est le meilleur. c'est le meilleur. waaw ah, non boobu mënatuma ko. nga ne Yékini teg na tànkam dama di Yékini. waaw. Yékini. Uh-huh. Euh, Balla Balla Balla Beye numéro waaw Yékini day arrière. waaw. mu topp ko mu topp ko ma ne ko ragalu la ragalu la Balla ragalu la ndeysaan piège la piège la waaw Yékini ngi arrière bu ko topp uh-huh. mais Balla booba moom tam fuggu bi gaynde la gaynde la aka ah, soxor day dem day dem comprendre nga uh-huh. ñu dem ba nga xamante ni Yékini jàpp na waaw ma ne Yékini jàpp na jàpp na Yékini jàpp na uh-huh. ah Balla bii jàpp parce que Yékini après la ma ni maa jàpp may ko mu jàpp parce que bu jàppul du wax ci man. Balla ba ba jàpp am na fu mu dugaloon loxo bi génne ko. voilà ba mu génneel ma ne ko foofu la woon. foofu la woon foofu la woon da nga amoon lecture. voilà mooy même Bombardier. Mhm. ba mu jàppante ak euh, Yékini. waaw parce que ak bàyyi jàpp bi dóor. waaw. si lañ ko daane ko daane. parce que yëpp Yékini. Ah. am na combat yu mujj yoo xam xam nga lu mu ko bëree. waaw expérience. expérience. nandite rek. da ah. ko bëree. Ah. mën a bëre. waaw daan leen. daan leen mais bu ma yëkkatee baaboo yi nag. waaw pivoté ak moom. Uh-huh. dóor ko ci suuf. Uh-huh. xaw ma lu ma koy wax. Uh-huh. nga ne ko c'est le meilleur mais Yékini daan ma ko. Yékini temps de combat. c'est le meilleur. c'est le meilleur tayu ma ko. est-ce que c'est le meilleur. mais c'est le meilleur. ah de tous les temps. ah non pas tous les temps. laam adduna sport noonu la. noonu lay mën ci jamono ji. mais c'est le meilleur. mais c'est le meilleur. Hmm. c'est le meilleur dafay am jamono yoo xam ne yow yaay doon le meilleur. Ah, dëgg la dafaa ngay doonoon na le meilleur. Hmm. ku nekk seen doole la. mu mu foofu si baabu yi dem si Yékini dem si Bombardier troisième euh, affrontement ba. waaw booba tamit Bombardier moo mënoon. Hmm. Bombardier moo mënoon. moo mëne woon. moo mënoon woon làmbam la woon bi mu ko daanee ba daf maa woo ci guddi gi hmm. daan naa sa copain bi. ndeysaan. ma <laughs> ne ko non sama copain nan la ba Bombardier moomee woon combat bi. selon ah toi parce que boobu Bombardier am na doole bu mu dugg see. waaw rëyul rëy yooyu mu daan rëy. waaw. wàññeeku. waaw sec. waaw waaw bari doole. dëgg la waaw et puis dóor fay Yékini dóor bu mm-hmm. garaaw. Mm-hmm. mais rek pour te dire Yékini dafa mën daawul bàyyi dara. Mm-hmm. daawul xeet dara. Uh-huh. loolu moo doon force am. force am bu daan Bombardier jël bu rëy. daan Bombardier caxabal. Uh-huh. jël bu rëy tànk bi rek tuus ko. wéeru ko wéeru ko. nga jóge foo ak moom def reportage. boo xam ne boo duggee YouTube ba léegi ay cent 400000 vues ngay gis. nga fekk ko Joal. loolu bokk na sa plus grand reportage yi nga mës a def di wala. bi ma ko fekkee Joal. bi nga fekkee Joal waaw ah, boobu lay wàññi. dinaa fa ñëw moo tax ma moo ma dugg si waxtaan boobu. waaw ko fa. ah 2011 muy añ. muy añ. mu sol sabadoor ba. waaw sol sol jàllaa. jàllaa ba jàllaa bu jaune bi. jàllaa bi bu uh-huh. bi. Ah, di lekk ginaaram. di lekk ginaaram di soo Balla uh-huh. uh-huh. say ginaar di lekk. <laughs> yaakaar dëgg la. Ah, ma fekk ko ñu mm, waxtaan. waxtaan bu neex. waxtaan bu neex boobu maa ngi ànd ak Bruno. ak ak Ndeye Kumba Fall. ndeysaan. ah. ah. moo doon dawal sax. moo doon dawal ah. xaw ma daal. Ah. ci xale yi. interview boobu ban wax moo la gën a marqué si Yékini lu mu wax. wax mooy li ko daaneel. moo ko daaneel. moo ko daaneel bien si waxtaan boobu. waaw waxtaan boobu ci la Yékini. Mm-hmm. waxee lu ëpp. kenn mënu ci dara. ma que daa am ku muy waxal mais mënu koo wax. Hmm. ba léegi tuddul Balla. déedéet tudd ko et puis daf bi muy wax. Hmm. ni daf kenn mënu ci dara. waaw am na ku muy waxal waxul ak sëriñ yi. mais communication bee baaxul. nit ñi interprété ko ni. Hmm. sëriñ yëpp la wax. yax ya waxul sëriñ yëpp de xam nga làmb dafa bari wax xam nga am na benn làmb Balla Beye boo gi sëriñu yëkki ni ci cummikaayu. baabooy baabooy waaw xamoon naa tur bi dinaa tur bi dina ñëw. waaw léegi Yékini. yooyu la doon expliqué. waaw amul kuy def xaw ma lan. waaw las xaar xaw ma daal. ak kuy def nangam nangam. waaye kenn mënu li ma li ma nar a def kenn mënu ci dara. booba waxul ak sëriñ da doon wax ak kooku. dafa am ku doon waxal. Hmm. mais comme que moom olof bi mënu koo wax ba mu leer. waaw. gaa yi dem nag mi voilà sëriñ la wax kenn mënulu ko dara. ku ci ah. def nii ku ci def nii. Hmm. et puis defet communication moo baaxul. communication non foofu Yékini à côté la jaar. Hmm. contre Balla Gaye. Ah. Yékini à côté la jaar. côté communication bi début ba fin dara baaxul. dara baaxul loolu loolu lu koy waral. ak koo xam ne moo dàq communiquer. waaw day am. day am hmm. day combat bi ëpp xëy na doole ji kii. te combat bi bi ñu koy taxawal. Ah. booba ni moo gën a nekk en position. en position mais booy bi daf ko ñeme. booy ah, bi daf ko ñeme. woon booy bi daf ko ñeme woon. ko noonu. Ah. di ko wax di ko dépla di ko dépassé. di ko dépassé naan ko ay bun fukki nag. Mm-hmm. ay nangam di ña ñay xaw ma nan ñay la ëpp a affaire yooyu. dëgg la xam nga. di mm-hmm. ko perturbé quoi. di ko perturbé yu la kenn daawul def. mu delloo ko def. waaw. waaw ah, yooyu la. yooyu la yooyu la moo gënoon perturbé Yékini. nga jóge foofu. waaaw nga am problème ak Yékini mu jaaxal senegal waaw xam nga nag loolu loolu loolu nan la mën a demee noonu. loolu mooy seytaane rek. seytaane doomu aadama bi. waaw nit dong nga. te man dama bari ay contentieux ci làmb ji. dinañ si ñëw moom laay wax gis nga man mbër. bu nekkee xale souvent. Mhm. sama xarit ngay doon. waaw. mais booy dem ci fin de carrière. Uh-huh. dootoo doonati sama xarit. Uh-huh. xam nga tax. lu tax dëgg nga nangu woon ba nga doonee gone nangootoo ko bi nga doonee mag. Uh-huh. kuy bee màgg. waaw kuy bu nu màggee dañuy mbëkkaate. dañuy mbëkkaat. waaw te du noonu. du ñu nangu bokk kenn mbal ñoom ñëpp ci yem na mbër yëpp noonu lan mel. Iba. reporté naa mbër. waaw mu bëre bëre wanewul benn réflexe. waaw. ma dem ci télé bi ma wax ko. waaw jabaram woma saga ma day mbeur mom mbeur jabaram. mbeur waaw. reporté na mbeur waaw xamna ma ngi lay déglu bu ba ba lamb ja jeex. Mhm. ma def ci commentaire. Mhm. mbeur momu daanu jabar gi woma saga ma day allah wo mhm. ma jege. wax ko ko tamit. waaw. ko ko tamit sama kilifa la sax. waaw. madame Ndiaye mii. madame Ndiaye bu bu bu 2STV. bu 2STV. Uh-huh. mais après ma comprendre ni. Mm-hmm. après ci laa xamee ni man te kooku. waaw comme li ma lay waxee rek. ba mu mm-hmm. tollee ca jamono yi di daan. waaw sama xarit la woon. Mm-hmm. bu mu tolloo si dërëm. waaw mais bu ñu demee <laughs> ba yegg yenn niveau yi. waaw bu ma waxee dara rek. dañ koy jàppee ni dama nga lay xeex dama laa bañ. damay nangam nangam. mër boobu foo leen mujjee après. non dara. après j'ai compris j'ai compris bi dégg nga si lu ne lu amul lu ma ci déggul dan lay ray ak mhm. jot nga ay menaces boo ñëwee làmb ja na la rey yow waaw waaw jot nga ay menaces de mort ay menaces de mort ñaata menace de mort ah, ñun nga bañ wala nga bëre ba pare mhm. am na ci mbër yoo xam dañuy dem toog ak ku leen di saagaal waaw ma toog si nga woo ma fii laay toog sama kër mhm. nit woo ma allo. Hmm. ma ne allo nga ne ma ko ak yow ma la jàppee dinaan waaye jaar fu garaaw. Hmm. fekk na moom mbër bi ñoo toog mais xam nga man nag samay réseau dañu garaaw. waaw après damay comprendre xam affaire bi fan la jógee. mais yow liñ lay menacé de mort yëpp. waaw lu ñu waaw ñu après dinañ ñëwaat si waxtaan. waaw ah, Bék dafa am appel. waaw boo am important dinañ ñëwaat si deuxième partie bi.